Euh, waxtaan wi nag di ko daan ci wax ñetti pàcc la woon benn bi dañ doon def benn dënd bu am solo yéen a ngi gis nataal yaa ngi nii dënd bi mi ngi nii dañ doon wan nit ñi ndaxte Sénégal booy wax rek dañuy wax kii mi ngi wax li muy wax ci lan la sukkandiku waaw dañuy wane fu ñu jaar nit ñi gis ko xam ni du du dañu gént du dañuy jëneer waaw loolu bañ ko wanee si ngay gisee booba tudduñu sax taxaw temm am na lu ñu tuddoon ba léegi bi ñu nekkee ci de ba ñun ñii nga xam ni ñoom lay mat yi ah, ñoom ah, ah, donc Mamadou ñoom gis na ñi nii li ñu fa wane lu am maanaa la te ñoom ñu ngi seen biir li jaan ci doon wax Macky Sall jour bi mu gañee élection présidentielle Yoff jour ba muy def meeting bi opposition jàpp ñoo nga foon dañu wane carte d'invitation ba ñu joxoon ak ak wane ni teewoon nañ fa donc yooyu lu tax ñaareel bi mooy dañu fexe ba euh, nett li li ñu xayma li ñu def bi ci topp mooy ñu segg li am solo wax naa ni dafa am juróomi fas yu am maanaa fas yi nag mooy ñun xeebuñu li ñu def ñun wane nañu def nañu lu takku ngir jubale jàppale langue yi bëgg réew mi soppiku wax nañu itam dañu ubbeeku euh, ànd di liggéey ci leeraayu ki ñuy jox tur wi muy professeur Ibrahima Fall wax nañu itam ni euh, keroog euh, am na lu am maana lu ñu fa génne mooy nika nañu gisee Sénégal ëllëg ñu ne dañu war a sukkandiku ci ndénkaane yi nga xam ni pencum réew mi wone woon nañ ko waaw daaneel nañu nag ñu ni Sénégal li am maanaa ñëpp ngi wax léegi kan mooy nekk prochain président bi parce que ki fi nekkoon nee na moom dootul dugg ci géew bi ah maanaam maanaam du bëre du bëre mën naa mun na mu nekk suq mën naa mu yëngal waaye moom nee na bi yoon du ñëw futeeku bëre loolu ñun nee ñu donc sénégalais yi war nañu seet tey kan mooy toog ci jal bi waaye dañ ñii te kooku ñoom Lamine ñi xam nañu li may wax euh, ñoom day métti choc bu ñuy waxtaan ma ni waaw mën moom am na maanaam waaye mais pencum réew mi bees mi nan lañ ko gisee ak yeneen kuréel yi am ci réew mi est-ce que dañu war a toog ba pare président bi taxaw na toog sa jal ba ñu seet yeneen bi yi ku ku loolu ñun xam nañ ni ku ci dugg ah daa am jafe-jafe de boo xalaatul réew mi naka nga koy jubbante euh, ci globalement donc loolu mooy li nga xam ni daanaka. Euh, wax nañ ko ci ci ci ci ci waxtaan bi li ci am maanaam mooy fi ñu daaneele mooy nañu wóolu askan wi a ah, bu kenn tiit yaakaar ni réew mi yàqu na déet ñun li ñu yàlla may euh, euh, sakkan na de réew mu am géej am dex yu bare mais ñee fi moom daanaka nit ñi itam yewu nañu yàgg la xam bon nañu wóolu suñu bopp nañu am fulla ak fayda mais nag nañu jàppoo jàppoo bu dëgër su ma mbokk CRD xam nañ li may wax bi ñu nee dañuy créer CRD dañuy ñëw ñu ni ñu tekki ko wolof ñu ne boobu ni ñu koy tekkee mu ni mooy euh, nañu ànd dékkil bokk waaye nee naa leen tur bi des na am lu des nañu déggoo ànd dekkil bokk est ce que déggoo gis ngeen réew mi réew mi nit ñi est ce que déggoo ci lan la ñu nii déggoo ngay ku jóg rek daañu man daal damaa bëgg nekk président nekk président waaw mais yow ci lan la ñu déggoo lan la ñu waxtaan bon euh, loolu wax nañ ko nee nañu nañu jàppoo jàppoo bu dëgër nañu sax ci dëgg ak maanute ñu sax ci nañu booloo bokk am na nag ñetti mbir yu nu sant nee nañu nañu wesaare la ñu jële Thiès ñaareel bi nañu déglu mbokk yi yéen ñii journalistes yi yore seen yéenekaay yi li ngeen di wax daañ ko segg seet li ci am njariñ ñu seet li ñu mën lu ñu mën ñu def ko lu ñu mënul ñu xaar ba xale yi euh, ñoom Pape Seye ak ñi def ko nee nañu itam nañu bañ nangu suñu réew mi di dugg ci xeex yu amalul njariñ réew mi amalul njariñ Afrique amul njariñ doomu Adama loolu daal lañu ñu fa wax Thiès Euh, di gërëm nag mbokk yi nga xam ni Amérique la ñu jël keroog seen téléphone mbokk yi nga xam ni Touba la leen fekk ñu jël seen téléphone mbokk yi nga xam ni Jemberig la leen fekk ak ñi teewoon ak ñeneen loolu daal lañuy def gërëm leen.